asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi li ñu dajale tey mooy joxe woon suñu position ñun FC 25 ci euh, waxtaan bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall amooloon na ko démb ak ay taskatu xibaar euh, li ñuy ñawlu nag mooy dafa am benn décision bu conseil constitutionnel jëloon le 15 février mooy la décision 1C moom mu jógee ci décision boobu le 16 mu ne dégg na li conseil constitutionnel wax liñ doon xaar. moo doon mu tontu ne dinañ woo candidat yi ndax ñu defoon nañ communiqué pour wax ni ci wàllu jongante yi ñu jëm bu dee am na ku njiitu réew mi war a waxal wala ñi nga xam ne ñooy nank mbirum ay jongante yi ñu jëm ñooñu bu ñuy war a waxtaan collectif candidat yi dañu war a waxee donc euh, ñu doon xaar donc mu tontu ci yàlla def na nag ñu ngi toll presque ci huit jour ba léegi tontoogu ci ñu koy ñaawlu ndax dañoo jël Sénégalais yi en otage dimanche bi la sénégalais yi waroon tànn ci jongante yi jëm ci premier tour bi mu nekk dimanche buy donc nuróojee ak dimanche bu ñuy suul démocratie wu Sénégal te loolu dafa xaw a doy waar ñu war a nekk benn xeex bu nga xam ne ñu ne war nañ ko xeex donc li ñuy am yéene def dimanche bi déggoon ngeen ko mooy dinañu wone ni sénégalais yi seen ax ak seen yelleef bu ñu bëggoon nangu seen loxo dinañ ko firndeel dimanche dem ci seen centre de vote yi ak benn bulletin bu rouge pour wane ni lii Macky Sall def mooy dax élection yi ci ay anam yi nga xam ne kenn xamu ko ñun rafetlu wuñ ko ñun sénégalais yi suñu àq ak suñu yelleef dinañ ko sàmmal suñu bopp. di jëm ci dialogue bi muy woote nag moom it bu soobee yàlla ñun dinañ woote suñu dialogue ak suñu ay citoyens sénégalais ndax ñun ñu dem ci dialogue bu nga xam ne lenn rek mooy objectif bi mooy wone ni. sénégalais yi maanaam politiciens yi juboowuñu ci lu ñuy déroulé ndax boo boolee ñi bokkul euh, objectif naturellement ay désaccord ngay am donc ñu koy ñaaw li ñu bëgg nag mooy njiitu réew mi xam ni ni ko sartu réew mi mayee ay sañ-sañ noonu la mayee assemblée nationale sañ-sañ noonu la mayee magistrature sañ-sañ te donc conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy àtte ci mbirum élection c'est le juge des élections moom moo ko ne doxalal ni mu waree avant le 2 avril solo le considérance 14 pour que cour jongante yi am donc ñu ngi koy wax ni lii moo ko desee ci digganteem ak sénégalais yi mu sàmm ko pour jàmm réew mi ndax jàmm réew mi du mbiru politicien mbiru ay institution la mbiru ay compétition yi nga xam ne dina indi respiration buy tax ba jàmm am ci réew mi